kilifa yi ñaan ñu ko ñu nangu ko ñu jàppoon nag ni bu doon ab nit lañu amal affaire ak li fi xew yépp bu ñuy weesoo dina xam ni lewoon nekkatul que ni mu noote woon askan bi jàpp leader politique yi di tëj jàpp mouvement citoyen di tëj que jeex na ci réew mi jàppoon nañu dina defaraat toogaayam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 kenn dégguñu ñu xuloo kenn dégguñu ñu saaga kenn dégguñu ñu xeex waaye njéeréeram njéeréeram yooyu nga xam ne ñoom ñëpp bi ñu jaxasoo ñu ngi woon ci suusol yi ñi dem tëju ci oto yi ñu libéré leen ñu dem wër plateau yëpp xëyee saaga gontoo xaste ak di menacé moom ci boppam nee na yéen yaayooyu ma ngay def tournée tournée politique mu naan tournée économique jël ay centaine de millions yoo xam ne suñu alalu réew la ñun ak ay oto yoo xam ne suñu oto réew la ak carburant boo xam suñu carburant réew la dem di yëpp ay car rapide ak ay njaga njaay pour dajale ay nit nee pour dalal xelam defe naa su dee dalal xel rek la bëgg am na ay bërëb yu tudd dalal xel diggante Thiès ak Fatick.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 ni loué ni importé mais je suis ku fi nekk rek li moo la fi andi di nax sa bopp rek di nax sa bopp dem jël ay nit yoo xam ne fukk yoo ci jël juróom-ñett yi ànduñoo waaye comme da ngaa ndóolal réew nit ñi sonn koo ñëw jox 2000 francs teg oto mu yéeg dem mu ne day dalal xelam. waaye li gën a yéeme du loolu de fu mu dem taxaw tëkku Sénégalais yi fu mu dem taxaw tëkku Sénégalais yi te bu mu jaaxle ba jaaxle moo woo kilifa diine ne leen wax leen wala la ñaaw nit dafay am jom nit dafay am jom ñàkk jom weesu bi ñu làmb làmb lamb yu métti yaa ngi tëju fi nga tëju fu ne nga woote fa wallu bi ñu demee ba may la tuuti oxygène nga ñëw di tëkku nit ñi di leen menacer waaye ma dalal xelu Barthélémy Dias li ma waxoon waxaat ko Macky tuuti na torop torop torop ci tribune dama ne leader yu mel ni Macky Sall boo leen daje woon mën na ko Barthélémy Dias tuuti na pour tere ni ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat